tey nag yéen a ngi arène nationale ak Serigne Modou Niang tey nag yàgg li ma jaaxal mooy lamb ji daa bëri nit làmb ji dafa bëri nit xoolal xool mbooloo mi yaa dégg booy yi yaa dégg booy yi xoolal lamb ji tey ni mu feesee làmb ji bu ma bëri tey ay nit Serigne Modou ñaa borom mu ñam production boo tourné côté ba la yàgg maar ginnaaw fële tamit gis nga mbooloo ma na mu mel làmb ji moo bëri ay nit tey xool nga mbooloo mi yàgg maar arbitre soufflé na bu anti ngeen jàkkaar lool mook Petit Baye Fall Petit Baye Fall tëngeej la jógee Siteu daw na jëli ko Siteu takk na ko Petit moot ko Siteu takk na ko Siteu takk na ko Petit bañ na de Siteu lu mu bëgg a def da koo bëgg a profité moom Siteu la bëgg a def Siteu Siteu caxabal na Siteu daan na Siteu bu écrit Ndakaaru daan na Petit Baye Fall bu kaay baax jël bu rëy jël bu rëy booy tey lañ lay jàpp booy doo raw xoolal booy bi dugg na ca plateau ba rawa góor ngi koy génne ñu koy génne daw na ba dug ca plateau direct ba eh booy yaa ngi sànni booy yaa ngi sànni booy lu xew booy lu xew booy lu xew Ada Fass a ngi ànd ak moom booy bi da fu ne jaar na fa waaye jàpp nañu ko de jàpp nañu ko booy calmez-vous xool booy ay booy dal leen booy coow baaxul moom lay sago ay Balla Diop moom lay sago daanal ba dem na lamb ji nga ñëwee di yaay kate moom lay sago waaw waaw ndaanaan ba dem na amateur yi jooy ndaanaan ba dem na musicien yi jooy ndaanaan ba dem na amateur yi jooy ndaanaan ba dem na way lamb yi jooy na yaay kate waaw waaw waaw waaw cosaani maam la moom laay sago woy leen cosaani maam la moom laay sago moom laay sago ndaanaan ba dem na ba dem na lamb jooy na weet ndaanaan ba dem na lamb jooy na weet judi yaay kate waaw waaw xam na sangur yaa yebel garaay Demba Diop Ndiaye daaw maram si ni daaw maram eh balla daaw maram bu jëmbe ngeen saar Ndiaye mbaay ana balla Diop yénaali jëmba ñaaw ginnaaw bi yàgg maar yaa xool image bële xool bi image yàgg maar kaay la tey laa koy wax te des fois nga wax ma ko arène nationale barrière de sécurité bii nañu ko yokk parce que des fois ma gis booy yi wàcc daw dugg ci biir enceinte bi te am na ay bés yoo xam ne ñu ngi ñëw yàgg maar nañu fagaru balaa ñuy faju moo gën a wóor ndax boo xoolee léegi booy bi bi ko police yi dàq fan la jóge daa war a dugg ci biir boo xoolee barrière bi daa gàtt te booy yi des fois wala supporters yi ñu def loo xam ne mën na indi musiba boo xoolee ñàkk jariñu Alioune Seye 2 loolu bokk na ci kanel tas combat bi parce que coow daa am ñoom ñëpp ñu wàcc ci suuf kon loolu nañ ci bàyyi xel nañu sóoraale barrière bii nga xam ne moo dox diggante supporters yi ak li nga xam ne moom mooy pelouse bi lii sax du pelouse bu la neexee nga ne enceinte ndax amul gason suuf la ak tartan mais nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ba balaa ëllëg parce que Balla Gaye 2 day bëreeg Bombardier Modou Lo Ama Baldé yaa gis kere li am Boy Niang Tapha Tine Mama Lamine Garga 2 Frank Tyson 2 yaa ngi dégg ak yeneen bés yoo xam ne nii boo koy lim doo fi jóge guy gi ak rëg-rëg ay combat yoo xam ne Abdou saabu Forza bu Fass Siteu Papa Sow te lépp ay bésum arbitre bi moom maskam bi doyul waaram kii dey corona dëgg lay daw waaye arbitre bi de tey maska bu rëy yàgg maar yàgg beneen combat ci géew bi fils da lang saane nag lang saaney baay ba moom moo ñu wan ginnaaw doomi Lang Sané ak Siteu 2 waa Lang Sané ku muy sa baay war ngaa mën a bëri arbitre su waa Siteu lu muy def nii booy dañuy dagg sa xaalis ay waay booy xanaa xamoo li xew booy looy arrière di génn ñuy dagg sa xaalis man de booy yi dama yaakaar ne xanaa seen manaat sa yi leen wax lu xew aawoy ah, ah way sorti te tay ko arbe soufflé waat na daw na jël ko é yàgg maar waaye doomi lang saane ji e doomi lang saane ji yàgg maar xool ni mbooloo lu lakkal fal doomi lang ji booy e booy bàyyi li ngeen di def booy booy bàyyi leen li ngeen di def booy li rafetul booy booy lii rafetlu na booy hey booy bàyyi leen li ngeen di def waay. ah non lii ñaaw na xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii ñaaw na yàgg maa yàgg lii ñaaw na. rafetul lii rafetul lii baaxul Modou Anta. lii woy Babacar. Modou Anta lii ñaaw xoolal lii. lu leen bàkkee ñooma. billaay wallaay taala lii dafa ñaaw. lii ñaaw na trop. image bu ñaaw lii baaxul lii. booy lii baaxul booy oo. Oh. booy lii naay sul lii baaxul. booy oo. Oh. booy booy non mais amul calme lii baaxul lii raayisul lii baaxul lii baaxul booy li nga def baaxul xoolal lii lii sa papa booy lii baaxul dafa lii rafetul xoolal lii lii c'est pas lii lii c'est pas lii rafetul lii lii dafa ñaaw yàgg maar lii xoolal lii xool bi image lii est lii jëmale na lamb kanam lii dafa ñaaw lii ma bëgg a defar lamb avec ça avec lii est-ce que lii dina tax lamb jekk te bu ñëwee buur géwél kaay buur kaay kaay buur yow lii nga gis nii dafa naa lii lu yàq lamb la lii lii lii rafetul parce que booy seet loo xam ne yow yaa ko moom yow lañ ko defaral te lamb ñu teg ñu bët nga ñëw di jël sëy si ko daggi tew yaa ciy toogaat soo ñëwee amoo foo toog nooy def na xale yi xoolaat ni melokaan bi ñuy ñëwee yar dafa baax buur mais fa fa fa jikkoon nek ab yar àggu fa xale yi dañ leen a wul nee naa la jikko fa mu nekk ab yar nekk fa nit ki dañ lay dañ lay xamal naka ngay ñëwee naka nga mel yow yaay kan mais xale yi lii ñu def bu ñëw ko ak de sées di ko damm di ko sànni te yow yaa ko moom yow lañ ko xal biisu ay ñaata milliards lañ wax ñu def la ko nii nga ñëw di ko séquencé mais pour lan teguñu ko fenn. ñaaw na ñaaw na réewane kese la. wallaay réewane kese la kese. xamadi kese xamadi kese la. Ah, yow ku ne xam na la ci làmb nga koy dundal di ko rafetal. waaw soo gisee tey image bu mel nii. lii yaakaar naa defarul làmb. waaw lii moom dañ koy déplorer parce que lii du lu baax. te yolof dafa wax ni euh, tan gone bu ñuy bu tan bu ñuy gubali mbaam te napp coosay parce que bu ñuy tëgg làmb xale yee tax defe naa bu président am nañ créé emploi xale yi sëñ Modou Niang di di promouvoir espoir yi di ko yëkkati muy ñoom kese daan amul mais ki daan am ay ay di def lii loolu loolu delloo làmb ginnaaw la te lu du encouragé promoteur bi du encouragé amateur du encouragé télévision du encouragé sponsor yi. état du ko encouragé. président du li war mooy ñoom ñu toog ki daan daanu ki daanu ñu dem ñibbi. ngeen jël ay matukaay ci ñi nga xam ne seen supporter ñooy yàq stade bi. waaw loolu dinañ ko mën parce que fi mu ne identification dañ koy def mais comme xam nga lu la bett man la te lu juddoogul mu tax mu tur waaye comme judd na tey mën nañ jël mën ne waaye parce que bu ñu paree dañ ci réunion d'urgence incha allah xool nañ lañ taxawee parce que lii yàq lii ñaaw na lii raasa na ñaaw mais si li ci a digaaw sax defe naa dem boo xoolee classico bi am ñaara bi ñaara entraîneur dañoo carrossé sóor yi kenn deful dara ñu dem loolu la ñu war a jàng sport fair play la mais nekkul ay affaire u bagarre affaire u mbedd dëgg la et puis lii ay xaalis a ki million ñu jëlee structure teg ko boo xam te ni état Sénégal moo ko def muy CNG promoteur bi jël xaalisam indi ay amateurs yu silu sa dikk ay télévision bàyyi seen yitte ñëw di ay direct ak ay ay di ko loolu laay wax amateurs yi ñu dellu si waat a euh, nit ñu dellusi ci làmb ji ñu ñu fekk ñu liggéey ci làmb moo gën ñu def lii parce que lii du lu baax. jël hey Rambo Rambo dina ko daan Rambo bës na ko Rambo da daan Rambo dawal na ko da koo bëgg a suul waaye xale ba bañ na Rambo da Rambo daanu na Rambo mujj na daanu Rambo da daanu daanu da daanu waroy way da daanu daaneel beer ba kaaya ko waxoon daanu daaneel hey wala lan Rambo daan. Rambo daan de waa mais ana secrétaire réew mi waa lii deesu ci wax waa lii deesu ci wax waa lii kenn ci wax gis nga li